noo ngi fii ci màkkatal mukarrama ci dalub murid saalix yi sëriñ saalixo mbàkke moom sëriñ falom sëriñ Chouaïbou ak sëriñ mouhamad mbàkke moom Cheikh Abdou Samad moom sëriñ Chouaïbou ak sëriñ Abdul Xaadir Jaañ ak sëriñ Jiiri Jaañ may feeru nag mbay mbeng ci xasida bu rafet gi mu yónnee léegi mbay mbeng yow jot naa ci sab yóbbante sa way wu neex wi rekk laa la sante mbay mbeng yow jot naa ci sab yóbbante sa way wu neex wi rekk laa la sante li xew Madina dellu xew fa Makka may fu ko xibaar ku nekkul Makka ajug murit saadix yi yéer na naar yi xasida yaa ngi riir ci mboolem kaar yi foo seeru Seex Saalihu Mbakke Fallu mbaa Seex Muhammad Mbakke mbaa nga fuglu noo def sa xol bi sedd tax nañuy naar di gëstu Seexu Bàmba ngir amug waar lañ sotti ci xasida fil Madina kenn mënu koo àndaale fil Madina lañ sotti ci xasida fil Madina kenn mësu koo àndaale fil Madina ilayka yaa xayral bariyati lañ doon nuyoo yoneen ba fi baabi salaam yaa sayidi yaa Moustapha di mbër ma lañ doon nuyoo yoneen fa baabu rahma fathul fataahi ak xasida ak nooru lañ doon nuyoo yoneen di dengoy jooru fathul fataahi ak xasida ak nooru lañ doon yoneen nuyoo yoneen di dengoy jooru toxfatu ak toxfatu lañ nuyoo baqiwul xarxat yi wa bi rabii wa bi jaay aswad yi fathul fataahi matlabul fawzayni lañ doon tawaafe kaaba duuna may nii barab bu nekk saalihoo fay jooru muhammadoo ngay awu baas di diiru cheikh abdou xaadir jaañ biral na nooru fii baytilaahi ma ngi ko wër di jooru cheikh abdoulaye jaañ biral na nooru cheikh abdou xaadir jaañ biral na nooru fii baytilaahi ma ngi ko wër di jooru te soxna maam mareem wa soxna ami daam ñi ngay duus xasida ñoo gën ñëpp maam ma dellu ñaanal cheikh samad chouayba ci darajaay ka seeru tubaab tayba murit yi muy yabal Madina ak Màkka yéenay Sëriñ Tuubaa la bul ko sàkk téeméeri million am yu manqué tuuti la ci nun noo ngi fi Màkka yi noote téeméeri million am yu manqué tuuti la def fi Màkka noo fii di noote watel wi ay pii la jël murit ya watel wi yaay pii la jëlal murit ya ak imareet ba wuute nag sareet ya watel wi yaay pii la jëlal murit ya ak imareet ba wuute nag sareet ya lii lépp ngir sagal sëriñ bu mag ba tey dàkk ay mbégam ba mel yal na ko yàlla dolli ay taraanga te far alak ku koy wutal yaraanga ma dellu ñaanal Cheikh Samat Chouaïba ca daara jaay ka séeru Tuubaa ak Tayba murit yi muy yebal Madina ak Màkka yéenay Sëriñ Tuubaa la bul ko chàkk téeméeri million am yu manqué tuuti la def ci nun noo ngi fi Màkka yi noote hôtel wi yaay pii la jëlal murit yi ak imareet yow wuute nag saret yi lii lépp ngir sagal sëriñ bu mag ba tey dàkk ay mbigam ba meññatal ba yàlla ko yàlla dolli ay taraanga te far alak ku koy wutal yaraanga mm. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim